mooy liggéey Serigne Touba Khadim Rasoul ci bis bu tedd bu màgg boobee ndax santal ma sama borom tabaraka wa taala la wax ci diggante ñaari keef yi muy giléem ba ca ganaar lu ci waay mën nam am na ma ko santale sama borom tabaraka wa taala képp koo xam ne sama mbég sa mbéga waaye yaakaar naa képp koo xam ne nee nga aslamtu nafsi wala ngay ab jullit te xam kii di Cheikh al Khadim radiyallahu taala xam ne mbégam sa mbéga ndax lim doon def jullit ñëpp la ko defal loolu la waral équipe technique bu waar bi TV feggoog Cheikh Mamadou Bachir Silla ci wàllu caméra bi mu feggoo ak Serigne Fallilou Silla mu nekkal ñu fële ca central ba nga xam ne mooy résident antenne bi nga xam ne mooy jottale li nga xam ne mooy bàyyi ko fii nga xam ne fi lañuy ñuy defee plateau bi ngir mbokki téléspectateurs yëpp mën ñoo bàyyi xel fu ñu mën a nekk ci àdduna bi kon xam naa dañuy nuyu suñu gan yi bu baax a baax siyaar leen Serigne Mbacke ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu sëñ Mortala ñoom it ñoom lañu war a àndal ci liggéey bi muy ñi nga xam ne dañoo bàyyi ko ci association bi ñuy wax wallu ak yeete wallu ak yeete nag xam naa duñ ci sori ndax ku dégg tur bi rek danga nga mën a wax ne jëmm yooyee rek ndax lan la ñuy wallu waaye ndax lan la ñuy yeete xam naa bu ñu duggee ci waxtaan wi dana gën a leer ñun ak ñoom ak yéen ñi nga xam ne da ngeen ñu seetaan te bëgg xam kuréel gi moo di gan kuréel ak luy seen liggéey ci bisu màggal gi ci dëkk bi lañu dëkk ci dëkk bi la juddoo ci dëkk bi la yaroo ci dëkk bi la ñu màgge kon bu ñu nee wallu ak yeete dañuy bàyyi rek sëriñ Mbacke bu ko defee mu nuyoo ak ñu koy bàyyi xel ci biir réew mi waaye nuyoo ak ñu koy bàyyi xel ci bitim réew Serigne Mbacke asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi lay nuyu. Euh, di nuyu mbokki jullit yi euh, di nuyu mbokki taalibe yépp euh, di jiital nag suñu kilifa sëñ Muntaxa Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba naal yi mun naal yépp lépp sotti te ñu fekkee ko ànd ko ak moom te Serigne Touba nangul ko di nuyu mbokk àddina bi yépp nag di sant bu baax ci plateau bii ngeen ñu dalal fii Euh, ngir bëgg a xam lan mooy association wàllu ak yeete euh, ak ngir bëgga xam ban liggéey ci lañ sóobu euh, rawatina ci bis bu tedd bi ñu dëgmal muy 18 safar di bis bi nga xamante ni ñëpp xam nañ ne mooy bis boo xamante ni moom la Cheikhul Khadim joxoñoon ni bis bi saabu bu del seetee rek ku ci nekk lu ci waay mën am rek bu ko yéem kéem ni nga ko waxee rek ganaar ba ci gëléem nga def ko ci Euh, te bis bi nag àgg foo xamante ni fi mu nii euh, jéggi na dayo ba bari ay xew-xew yu ci am euh, yoo xamante ni association bi taxawee ko tamit ngir jëf ci kéem kàttanam lim ci man seen mbokk nag sëriñ Mbacke Mbengue di secretaire général ci association Wallu ak Yeete moo leen di nuyu ci kàddu yooyu. jërëjëf Serigne Mbacke Dieng di vice président. association bii di wàllu ak yeete. secrétaire général secrétaire général boog ñu ngi jégluwaat bu baax. Hmm. ñu ngi nuyu bu baax a baax euh, ñëpp ñoo xam ne bokk nañ ci wàllu ak yeete. Hmm. ak ñi nga xam ne bokkuñ ci waaye ñi nga rafet rafetlu liggéey bi xam naa liggéey bi moom ku xam di ko rafetlu. Hmm. te it di nga daw jéem cee yi ndax ku nekk xam na ne euh, wàllu ak yeete liggéey boo am solo bi nga xam ne dañ koy def ci màggalu Touba. xam naa bu ñu dikkaatee ci yow di nga gën a leeral liggéey bi naka lay doxee. ak lu waral ñu taxawal kuréel gii di wàllu ak yeete kon sëriñ Mortala moom ci wàllu communication bi la yëngu xam naa dinañu leeral ndomba tànk gim ci rango ñu ngi lay nuyu baax di la ziar di dalal bu baax ci euh, Waarwi TV. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Waarwi TV ñu ngi leen di bu baax sa di leen ziar di nuyu tamit seen téléspectateurs yi képp koo xam ne yàlla dogal na mu ngi seetaan ñu ngi lay nuyu te di la ziar Mortala Wade la nekk adjoint wu communication bu. wàllu ak yeete ni ko suñ jëwriñ waxee rek bés bi day bis bopp képp kuy murit wala sax ngay koo xam ne bi ne bëggu sëñ bi ñor na la saabu bu dikkatee da nga ko ndax da nga xam ne sëñ Tuubaa mii ñu fenn fenn ci ay mbiram ci ay yëngoom ci ay dalam fu mu wootee di ñaan dimbal loolu ci bés bi bis bii nag moo ne képp koo xam ne sama mbég sama mbég la ñëw leen ngeen sant la ma yàlla ndax sama cant bopp gi xeeb na ci mm-hmm. léegi nag bu boobaa day mel ne kon benn xeer lay doon bu jam ñaari ndax yaa ngi koy def ngir ndigal ba noppi yaa ngi koy def ngir bokk nga ci ñi nga xam ne mbégum sëñ bi seen mbég la mm-hmm. kon xam naa ñu taxawlu foofu ba ci kanamaat insha allahu taala barakallah jërëjëf euh, Serigne Mor Talla cant ak ngërëm ñeel na la kon ñooñu ñoo di sunu gan euh, yoo xam ne tey war nañu seq ak ñoom waxtaan ngir xam association bi euh, lu ko tax a jóg ak lan mooy liggéeyam ak fan la commencé ak liggéeyam fan la yem yaakaar na ay activités yu bëri yoo xam ne association bi mane na ko euh, te it euh, lépp am nañ ci ngërëma Serigne Touba. kon Serigne Mbacké ba ñu doon wax association bi di wàllu ak yeete lu waral tur wi ak lu ko tax a jóg bu ko defee ñu doog a dugg dëgg-dëgg yi ci waxtaan wi nga xam ne mooy euh, moo ñu tax a jóg. Hmm. waaw jërëjëf sëñ Koso association bi moom tur wi rek ku ko dégg xam ne li mu làmboo rëy na hmm. te bàyyiwul dara. Euh, dañoo nekkoon ci dëkk bi nekk ay doomi dëkk bi euh, gis ni dëkk bi bari na yu fi sooxe yoo xam ni lépp mi ngi nekk ci kaw ñàkk xam euh, yenn yi nekk ci kaw maanaam jàppe askan wi ni ñii kat ay ñu jóge ca àll ba rek ñëw lañ waaye amuñ benn xam-xam ba tax taxaw bi ñu leen war a taxawu wala seen ak ak yelleef bi ñu leen war a jox des na ñu ci daan gis ay façon yu bari daal ak dëkk bi niñ ko jàppee rek fu waay jógee ñëw dugg te yooyu yëpp mën a indi ay conséquences ak ay mbir yoo xamante ni làmbawul ak bëggub sëriñ bi mm. tax nag ñu dajaloo woon xalaat nag ni nañ sos benn association bu war a dox jëm ci loolu niñ ko sosee it ñu tuddee ko wallu ak yeete ñu ko tuddee wallu ak yeete ba pare it ah, booba sëñ Sidi Mokhtar moo fi nekkoon ah, ñu dem ba egg fa moom Euh, gaaral ko li ñu bëgg wax ko association bi mu rafetlu ko lool daal di ñu ciy jox ndigal ak ay yeneen i kilifa yu bare bare bare ci dëkk bi di jaar nañ ci ñoom waxtaan ceeg ñoom yëgal leen association bi ñu rafetlu ko lool tamit ànd ceeg ñun te ni lii moom lu waroon a am bu yàgg la waaye nag comme sotte na ci seen i loxo ñaanal ci ndax ñu mën cee am ndam kéem niñ ko waxee euh, boobu ba nëgë ni nag ñoo ngi ci di ci dox depuis 2014 ba nëgë ni la euh, doxin wi nag euh, mel na ni njëlbéen gi xawoon naa yéex ndax xañ na siiw bi wala bànqaas si law ba àgg fi mu waroon a àgg desoon na waaye jamono yi ñuy wax nag am nañ ci ay yenn jéego yoo xamante ni mu ngi ci am ndànk-ndànk daal. jërëjëf Serigne comme ni nga ko waxee. yaakaar naa jamonoy Cheikh Sidi maxtaa rek léegi kon léegi ngeen def ay at. association bi euh, xalaat bi ci kan la jóge euh, da ngeen jékki-jékki xalaat ko wala da ngeen dajale as koppar dem siyaare ji sëriñ bi mu jox leen ci ndigal wala yéen ko xalaat seen bopp ak tur wi ndax sëriñ bi leen ko jox wala yéen ko xalaatal seen bopp. Hmm, waaw tur wi moom ñoo ko wutal suñu bopp. gannaaw ba ñu dajaloo nga xam ne comme léeg-léeg ni ñuy def rek ay taalibe léeg-léeg nga xam ne ñaar fu ñu rek lu ci ëpp waxtaane sëriñ bi. wala waxtaani dëkk bi rek euh, ci la ñuy nekk euh, yàlla dogal ñu dajaloo woon benn bis euh, motuñ woon sax yaakaar naa juróom benn nit doon waxtaan ci dëkk bi ak sëñ bi ba mujj ñu gis loo xamante ni daal yenn jafe-jafe yoo xam ni day am léeg-léeg ci béréb yi ñuy faje wala léeg ñuy soxla police wala gendarmerie ñu fa am xam-xam léeg ñu dem fa ñëw ak maire yaakaar ni joxuñ leen seen àq wala loolo te duñ dul xam fañ war a jaar ñaare yooyu daal ñu gis ne am nay sooxe sooxe daal léegi ci lañ taxawoon nag ñun pourquoi pas waruñoo mën a dajaloo nag woote bu ñu wootee ku ñu wuysu nag ñu partagé ak yow suñ idée yi xool ni ndax lii ñu taxawal am na solo wala déet bu amee solo ñu jéem koo jëmmal te àndandoo ci nag di dimbali nit ñi kéem ni ngeen ko déggee rek ku am fóotale ñu wàllu la fa ba fa sunu kàttan yam bu sunu kàttan rombee foofa lépp loo gis am na ku ko jiite ami kilifa ñu jàll ci kilifa yooya ba keroog ko euh, sa soxla soosu nga am wala sa aajo jooju nga am nga am ko te kenn du damm sa àq kenn du damm sa yeleef biñ ko rafetloo tamit lañ ne kon nañ leen ko def ci tënk ko ci ab association biñ ko tënkee ci association nag lañ daal di dem nag comme niñ ko xamee association ci li muy tënku am récépissé am euh, ay këyitam yu wóor ñu daal ne kon balaa dara xew nañ leen jóg dox ci loolu ci loolu lañ ci dox tamit bala yàlla àtte ñu am suñuy këyit ñoo ngi suñu récépissé doo ko dem nag gaaral ko leeralal ko ko wax ko am nañuy këyit am nañu yëpp nag boole koog nag ca bis booba nag ni ko nag it gis nañ ni ci màggalu Tuubaa it am nañu lu fi sooxe loo xam ne it boo ñu ci mayee ndigal tamit ñu suubuwaale ci tamit di liggéeyaal loola muy maanaam bi gindi gan ñi réer ak ñi nga xamante ni dem nañ ba xamatuñ fi ñu war a dem dali ñu far téye leen ñu dal ñun ba màggal gi jeex ñu lu ko lool waaye nag at miñ ko njëkk def ñu gis ni yemuñ ci gindi ay gan ndax at moomu lañ mas a recensé ñaata gan lañ lañ gindi mais at moomu dañuy recensé di recensé bu recensé yaakaar naa su ma juumul fàtte naa chiffres yi waaye recensé nañ lu toll ci junni nit ak nangam mm. yoo xam ne dañoo réer te jamono 2014 xam nga booba crédit bi melul nii mm, mm, booba ay lignes yu cher nga daan dugg booba yaakaar naa année boobu suma juumul dépensé nañ daanaka lu jege 300000 ci ci ci crédit ngir di wooteel nit di leen làddanti di leen booleek ay élément bañ àgg fañ jëm am ci ñoo xam ne sax day mujj baas bi ñu yoroon nga xam ne wetu kër sëñ Abdu Lahat la newoon dañuy mujj sax ñoo xam ne dañuy mujj sonn sax ci farat duutuñ bëggatee dem fañ doon jëm waaye dañuy far toog foofa ci baas bi far ko fa màggalee loolu nag ñu gis ni bi muy am nag eh, léeg-léeg nit for xale dégguñu eh, suñ micro bi daal di ñëw daal ni kii de dañ koo for daa réer ah xamul nu ñuy def te comme ñun euh, maanaam nekkal fi sëñ bi la te sëñ bi moom bu xamoon ku ñëw ci màggal gi réer mooy dox ak tànkam dem wërali ko boppam ñu ne kon nañ taxawu sëñ bi ci loolu daal di jël xale yooyu liir bu gàtt rek lu matul ay ñetti waxtu rek xale yi bëgg faa nekk ay ñaar fukki xale ak nàngam léegi nag ñu ne kon lii nag Euh, yoon la léegi lii yoon la te liggéey la léegi nag comme ren bett nañu nañ ci def suñ suñu kéemtalaay kàttan luñ ci man ñu jàllale ko bu déwénee ak jàmm ñu waajalaat ko loolu moo indi sax fi mu ne nii daanaka su màggalu Tuubaa jubsee rek képp koo dégg rek mu ne walloog yeete rek ku am ku réer wala nga réere rek jokkool ak ñoom tabaarakallaa jërëjëf sëñ Mbacke di fàttaliwaat mbokk yi ne yéen a ngi ñu door a dab ñoo ngi ne ànd ak Waarwi TV mu ànd ak Serigne Fallilou Sylla mi nga xam ne moo ñu féete fële ci wàllu central ba ba nit ñi man koo am ci télévision yi ci biir réew mi ak ci bitim réew loolee ci xarala gi Serigne ba Sylla moo fa pare. Euh, sëñ Mortala dégg nga Serigne Mbacke wax ju am solo ji nga xam ne moom la wax waaye bànqaas bi nga féetewoo nga xam ne ñun ak yow ñoo fa bokk nekk muy wàllu communication di lu am solo ci kuréel euh, ci wàllu communication bi euh, naka ngeen ciy doxee. ndax xam nañ ne communication mooy coordination rek naka ngeen doxee pour waajale ko bis bi ci wàllu communication ndax wàllu ak yeete lee mu yàgg waaye nit ñi daa mel ne seen nañ ko xam. waaw dëgg la sëñ Koso ni nga ko waxee noonu rek mooy li sama sëriñ wax am na solo. mooy nit ki wàllu ak yeete mooy nit ki danga koy wàllu ci bu jaaxle yee ko ci buy nelaw communication nag daa nekk mooy yee nit ki. Mm-hmm. mooy xamal ko lii mooy lan ndax. dafa am koo xam ne bi ne yàlla dafa dogal mu ngi jóge fële di màggal te bu dikkee jamono ji daanaka lépp dañ ko tënk ci téléphone am na ko bu dikkee bu ñu jëlee téléphone la bu téléphone bi réeré rek addunaam yëpp yàqu na mm-hmm. xaalisam ca la nekk adresse am ca nekk te mu war a nowoo nekk kon boobaa kooku kenn mënu koo tey am jafe-jafe bu boobaa nag nga koy jëlee foofa mm-hmm. mooy jëlee ko ci situation jëlee ko moo xam nga mën a ànd ak moom ba yóbbu ko fu mu dal bu loolu yëpp amut nga mën koo téye yow fi nga nekk daloo ko fexe ba li ak gan di soxla woo ngir màggal nga dalal koog moom ba mu aj ba mu ajoo ko ba mu mat sëkk bu demee ba dara du si ñibbi nga jënti ko paas mu ñibbi bu ko defee communication ba tim ni nga ko waxee noonu mooy lépp loo xam ne yàlla dafa dogal gën ko mën a yaatal gën a mën a fexe nit ñi yëg ko ndax ñun ci suñu domaine bopp suñu liggéey bopp communication la bi ñu bokk see ci kuréel gi tamit yàlla dogal ñu tànnaat foofu ndax dañoo gis ne nit ki li koy yëgal alxuraan sax communication mooy nit ki li fekk yëgul mbir day na jafe lool ngir mu jariñoo ci mm. loolaa tax bu ñu lépp loo xam ne yàlla dogal na mën nañ ko ci suñu moyen ni bopp yi ñu yàlla jagleel mm. dañ ciy jóg di dem ci ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu man dara tey xamuñu ko xamuñu maa am doxin bi ñëw ndax damay wax ne wala ak yéete képp ku ko xam rek bëgg ko ndax mooy lépp bu ko defee nag moo xam ku am wërsëg la moo xam ku am xalaat la moo xam sax ku am ay moyen ba ci li ñuy def nii mm. ci communication bi la bokk mooy fekk koo xam dana gën a yaatal mm. ndax damay wax léeg-léeg nga mel ne ku réer la dara di ko wax am ku ñëw jox la micro ne la waxee ko fii mm-hmm, mm-hmm. bu boobaa loolu lay tax mu gën a gën a gën a yaatu te fu mu àgg rek njariñ la àgg fa mm-hmm. loolu daal mooy li nga xam ne bii ne ci la ñuy eh, féete ñun fas a ci bàyyi suñu laaj ndax damay wax ne màggal gi lu mu neex neex neex neex moom su fekkee yàlla dafa dogal nga réer wala nga réer la neexit bi moom doo ko yëg dëgg la dëgg la boobaa nag daanaka teraanga ji solo mooy fexe ba nit ki màggal si jàmm mm. du réer le du réer mm. wala bu fekkee mu réer wala mu réer le mu daal di gaaw gindiku mm. daal mooy si nga xam ne ci la suñu yëngu yëngu jub jërëjëf sëñ Mor waaye uh, ku wax Touba it wax ne ay kilifa ñoo fi dëkk muy uh, Cheikh Mahamadul Mountakha dale ko ci moom jaar ci Cheikh Mahamadul Bachir ba ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllu coordination ci wàllu màggal gi ndax ñooñu communication bi dafay dem ci ñoom ngir yëgal leen fu liggéey bi toll at mu nekk wala yit da ngeen dox seen doxini bopp rek comme ni ko murid yëpp di defee. waaw ci loolu euh, sëñ Koso mm-hmm. euh, loolu sax moom euh, laaj bu am solo la mm-hmm. ñi yor commission màggal gi moom wax dëgg yàlla xam nañ walloog yeete bu baax a baax a baax mm-hmm. te ñaan nañ ci joxe ci ndigal waaye nag walloog yeete moo nekk nag association boo xam ne ñaare lu féeteek ci kilifa yi ñoom dañoo jàpp bañ leen na sonal ci dara oh. ndax ñoom màggal gi boo gisee li ñuy jànkoonteel Euh, boo jàlloog ñoom rek wala nga leen di suivre bu baax ci plateau yi ak li ñuy def mhm. da ngay xam ni ñuy sonn nañ sonn boo xam ni maara taal taali moo tax ñaare bu màggal jege see sax duñu leen bëgg di jege ginnaaw bañ ci amee seen digal te ñu reconnaître ñu euh, sëñ Ousmane Mbacke xam nañu bu baax sëñ Bassirou Abdou Khadir xam nañu bu baax ñoom ñëpp dem nañ ba ci ñoom ñaan leen digal laaj leen ko leeralal leen bañ jox ci ndigal bu baax a baax a baax rafet lu ko waaye ñaare ñun ñoo ne nañ di rek fexe suñu bopp rek ndax lenn daf cee nekk koo xam ne bu sëñ bi ñëwoon nga soppi toogin ak koo xam ni bu sëñ bi ñëwoon doo soppiwu toogin nañ fexe nekk ci position boo xam ne rek mm-hmm. ku ñu bett tamit duñ duñ soppi toogin eh, ba tax na sax am na màggal goo xam ne ni ngay gis nii mm-hmm. eh, sëñ Muntaxa mi sax amoon na dongaam bu réeroon sax mm-hmm. waaye fa saase sax moom dégg naa ñi moo waxal boppam ni am na kuréel guy taxawoo loolu yëgal leen leen ko ñu taxawu ci kon daanaka moo tax rek eh, moo tax rek maanaam lu ñu leen naroon a jege rek di leen ko sonalee rek donte sax war nañ caa bokk ci commission bi xam ko rek mm. euh, dangay xam ne lii liggéey féetewu ko kaw ci màggal gi du liggéey bu waaw ndax ni ma ko waxee rek mm. euh, ni ko sëñ Mortala waxee rek mm. euh, sa kër bu fa gan ñëwee ak fu mën di jógee rek ñu ni gan ga la wala tout tànk ba réer na xale ba ñam moom kenn duutu ko fa lekk kër ga moom kenn fay des kon di ko garde sa mbokki dëkkandoo yi taxaloog yow tamit képp ku ci dégg ni sa gan doomam réer na fitam dem duutu toog te loolu lépp sëñ bi ci boppam li mu bëgg ci dëkk bi ak lim yéene ci dëkk bi nga xam ne dëkkub yërmande la bëggul kenn di fi ñëw di fi jànkonteeg coono kon loolu ku koy liggéeyal moom nga koy liggéeyal mhm. kon loolu moo tax ñun comme ñoo ngi ci yoon wi rek mhm. jërut ñu ñu ñu ñuy xuuse ci yenn yi mhm. euh, euh, tey ñaan rek ñu dajee ci ak taw feexlu sëñ bi looloo tax ñu doxalee ko nii waaye commission bi xam nañu bu baax reconnaître nañu bu baax euh, ba ci mu xaddimatul xidma ak kuréel yu bare bare bare bare xam nañu bu baax a baax a baax daal def ci ñaan te jàpp nag bu baax a baax a surtout tamit mu xaddamaatul xidma daaw nga xam ne euh, daanaka dañoo lëkkaloo woon ci ci ci liggéey bi sax mm-hmm. ñu taxaw woon ci tamit ci ak wet bu baax a baax a baax loolu moo tax daal ñu def ko ak cant bu baax a baax daal euh, sañ ko sax barakalla jërëjëf jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf sëñ Mbacke wax leer na lool xanaa di ndokkeelaat bu baax ki ñu ko waxee sëñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma mm-hmm. bi nga xam ne coordonnateur la ci Euh, comité organisation màggal gi sëriñ Bassirou Mbacke Moussa Abdou Khadir ni nga ko waxee noonu ndax saa yu ñu xëy ñun mhm. foofee fa lañu yenu ca moom mhm. kon li nga wax euh, xam nañ ko bu baax mhm. te bu ko ñëpp xamee woon noonu it euh, comité organisation màggal gi danañ noppaloo ndax am na ci loo xam ne nag nit ki moo koy jaayanteel boppam ci ni nga ko waxee ni ñu mu dégg sa galanu mooy da ngeen koy jaayante yéen seen bopp ndax xam ne doo dem di leen sonal ndax bu ngeen sonal kuréel gi ba noppi te lu ngeen ci def comité organisation màggal gi ñoo leen koy joxit dafay mel ni euh, association yi nga xam ne dañ koo taxawal ngir dóor ndax boo gisee ñu bëri bëgguñu bokk ci association yi mooy dóor yi nga xam ne association yu bari dañ koy mane mooy taxawal benn association ngir am tur waaye taxawal benn association ngir lekk dundee yoonu murit waaye dundaloo yoonu murit waaye yéen ku leen dégg xam ne ci ñiy dundal yoon wi ci ngeen bokk ndaxte sëñ Mbacke yow am di nga am ay gan ci màggal gi sëñ Mortal dina am ay si gan ci màggal gi waaye da ngeen ko fanaan ñukk nekk ci biir dëkk bi ànd ak gan ñi nit ki sax da nga moom mu réer suba ngoon te du gindee ko waaye ñeewanta ngir bàyyi ko waaye bu ñu dikkaatee ci sëñ Mor Talla gis nañu ne euh, comme ni ko sëñ Bakke waxee xale yi nga xam ne dañuy réer dañuy bari te mi ngi naan euh, am na année boo xam ne daanaka liñ ci dépasse ci wàllu communication mat na. 300 euh, 000 loolee ci wàllu communication nan ngeen di def. pour am numéro yi ndax nit ki dafay am numéro ngeen woote wala da ngeen di def ay recherche rek dégg naa ko yi ni mu tudd police xam naa dina dikkaat ci laaj boobu moom laa koy jagleel sax loolee naka naka ngeen ban stratégie ngeen di def nit ki réeree xam nga nit ki bu réeree dafay dikk jaxasoo ban communication ngeen di def ak moom mbam dal ngeen doog a dikk ndax xale bu dikkee moom daanaka jooy rek lay def am na ñoo xam ne mënuñoo wax loolee ay jafe-jafe lay doon tabarakaala dëgg la ni nga ko waxee noonu ba ci mag sax léeg-léeg nga gis koo xam ne bu réeré day tàggoo ak sago waaw day tàggoo ak sago dafa am da ngaa a sa bopp ba nga xam ne bi ne a <laughs> nañ ci xale boo xam ne bi ne daaw mhm. am nañu moom cinq jours ñaari question yi la lay tontu mhm. ñett noo tudd mu wax ñu turam tur yaayam tur waa tur waa juróom bu jigéen ak foo dëkk mu ne taw nga xam ne dem nañ ba <laughs> ñeenti fan yëpp te taw feex man xam naa ci lu man ñeent ba juróom hmm. waaye nag ci li nga wax ne ci li nga xam ne enquête da ngay dem bu yàgg sa xel di dik hmm. ci laa toog mu yàgg ma ne ko moo dukaay mu ñëw ma ne ko yow taw sa yaay ñoom fan la ñu demee marché mu ne ma pekkees ci laa xamee ne kon du yeneen yi ma xamoon yëpp waaye kon foofu donte ka xaw moon googu ak tawfeex fa ci lañ defee noonu nag ñu woo ku dëkk ca tund woo mun nañu am na fi dëkk bu tudd tawfeex ñu woo fi di woote fa woote bi li ñu jëkk wax mooy man fii tey laa fi ma <laughs> bi bokkul ak la am téye nañ ko fi lu mat une semaine waaye ci li nga wax ni booy toog di xalaat mu yàgg damaa dem mu yàgg benn ma wàññi ko jëwriñ biñ dikkee ma ne ko noo tudd mu wax ma weneen tur bu bokkut ak dama ko sa turandoo tudd mu wax ma weneen tur bu bokkut ak yi mu joxoon ma ne ko yow laa tudd ñu topp ko ba dafa am na ne sëñ bi moo ci wane tawfeex bopp ndax léeg-léeg da nga gis loo xam ne bi ne du a am waaye moom da ngay dem yàgg sa xel day ubbiku ci nga xam ne enquête moom du loola lu sa xel mi ngay jëfandoo ci ay laaj ak i tontu ci ngay dem ba ci ay bunt yoo xam ne bi ne léegi bëgg da nga ko am wax dëgg yàlla ñu ci ànd ak gàttandu gàttandu sëñ bi allah mm-hmm. waaw barakallah euh, am solo jooju kaar naa enquête moom da ngay jëfandikoo sa xel rek ndax nit ki boo dikkee boo ko dégloo ni nga ko waxee gone yi bu ñu dikkee dañuy sonn ndax it xam nga réer kii jël la jàll la ca kee kee jàll la kee da ngay dem bu yàgg da ngay am jafe-jafe rawatina mag mu réer nga xam ne mag moom bu réeree moom day gën a dëgër bopp nag parce que day jàpp ne wur na mën a gëlëm ñun sax dëkk ci dëkk bi léegi la ñu génn diggante boo xam ne da ngay gëlëm rawatina nag ki nga xam ne euh, bâtiment bu weex ba hmm. ba boo oto bi teggeek moom rek wër kër googu rek day am jafe-jafe ak it euh, suñu mbokku chauffeur yi ñoom itam ñu ngi leen ndokkeelal baax a baax xam naa ñi ngi ci yoon wi mm-hmm. di ñëw ñu leen di ñaanal képp ku jóg rek yàlla nga agsi ci jàmm mm-hmm. delluwaat sa njaboot ci jàmm léeg-léeg it jafe-jafe dafay am ci loolu ñu wax ne na jëlee naa la fii ci jumaa ji wala jëlee naa la fii ci corniche belel wala corniche gédé wala garas daaru moxti war laa yóbbu jumaa ja waaye fa ñu lay wàcc sa diggante jumaa ji dina mat un kilomètre mm-hmm. kookee bu yoree ay bagage day am jafe-jafe ñi nga xam ne dañuy bàyyi ko Ndakaaru léegi ca garage bu bees ba ci leen di yamale kookee day am jafe-jafe ndax xamoo naka la dikki ak paasam mm-hmm. kookee réer dikkal na ko dina am ay jafe-jafe dina toggoote ay coona kooku bu dikkoo ci wàllu ak yeete naam dina fekk ay nit ñoo xam ne daal nañ waaye sonn nañ ko moom it mm-hmm. ndax yéen liggéey bu métti ci ngeen nekk waaye euh, sëñ Mbacke mm-hmm. bu dikkaatee ci wàllu ak yeete mhm. man liggéey bi damaa jàppoon ne màggal kese la waaye moo ma déggee nga tudd ci police ak gendarmerie mhm. ak di lijjanti nit mhm. koo xam ne ay jafe am na ay jafe-jafe ca police ak gendarmerie nga war ko lijjanti ba xam naka la ko ak accueillir ak yi wax ko ne ko say droit lii la liggéey boobu du xaw a jafe ci association waaw liggéey boobu du jafe lool ci association bi Euh, ndax maanaam bu dee lu mel ni tey jëmmi police. Mhm. nga xam ne la nekk daanaka lépp dafa jaar ci yoon. Mhm, mhm. am kilifa. Euh, am ay ndaw yu leen fa nekkal. Euh, day am loo xamante ne xañ na boo yemee ca ndaw ña. mu saafarawu. day am loo xamante ne xañ na ca kilifa ga ca lay mën a saafara léeg-léeg nga gis koo xam ne day dem rek police daal di ñëw rek daal di man kat dem naa nangam nangam waaye la ma doon lijjanti nangam. man daal xaw xawa xaw xaw a mel ni ku génne mer. wala nangam. te xañ na booba fekk na xañ na xamul yoon moom war a jaar mm. wala xamul xañ na rendez-vous yam war a jël wala xañ na xamul ni lii ca kilifa ga la man a saafara woo te it euh, lu mel noonu bu amee nag ñaaree tamit ñun buñ gisee ku mel noonu dañ koy xamante ne ko lu ci nekk dafa am foo xam ni fa lay saafara woo am na loo xamante ni mën naa saafara woo ci suuf waaye am na loo xamante ni mën naa saafara woo ca kaw mm-hmm. tey day am loo xamante ni toujours euh, bu dee kilifa toujours rek fu mu nekk di liggéey rek dafay bëgg am résultat boo xamante ni résultat bu baax bu am solo lay doon ba tax na tamit kilifa googu day soxla ñi nga xamante ni ñooy population bi bu dee commissaire da leen di soxla bu dee commandant da leen di soxla même sëriñ si sax dañuy soxla nit ñi nga xam ne dañoo dëkk ci koñ yi ñëw naa leen lii dafa manqué wala njaboot sànga mi wala nit ñi ñu ngi dund lii bu ko defee moom ak selon na muy liggéeyee mu mën a xam yan joyanti la mën a indi mën Euh, recadré waatee ay personnel am bañ mën a déggoo ak population bi bañ mën leen a ñeme ba mën a saakonteeg ñoom ba tax li ñu war a liggéey lépp ñu liggéey ko te benn fay du ci am loolu tamit dañ ciy sensibiliser nit ñi bu baax baax a baax euh, yi tamit lu ci bëri daanañ ci sensibiliser nit ñi tamit ndax am nay jamono tamit wax dëgg yàlla léeg-léeg nga dem ci hôpital nañ la fa war a accueillir wala yooyu tamit xaw a doy waar te malaat daanaka rek lu mu wéradi wéradi rek Euh, buy egsi rek bu am na noo koy accueillir rek wéradi gi daanaka rek boo ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi day dañ mais am na nu muy wéradee rek bu ñëwee am na noo koy accueillir rek daanaka wéradi ga yow may docteur yow yaa ko yokku mm-hmm. loolu tamit ñu ci ñaaxaat suñu bokk médecin yi bu baax a baax a baax ndax jamono yi ñu toll sax moom wax dëgg yàlla gis nañ am nañ ciy jéego bu baax a baax a baax a baax nag yoo xamante moom ñi ngi ko ciy def wax dëgg yàlla ci ni ñuy accueillir malade yi ak ni ñu leen di taxawoo ndax man yu ci bëri ñu ngi ciy def enquête ak di laaj malade yi waaye am ñu ngi ciy am daal wax dëgg yàlla tawfeex ak ay avancement waaye bu njëkk jamono yi kuréel gii di taxaw moom mm-hmm. amoon na ci ay sooxe yoo xamante ni bokkoon nañu li ñu gënoon a poussé tamit ñu ñu taxawal association mm-hmm. di ndokkalaal ba baax a baax commissaire Bassirou Sarr ak euh, commissaire Thioban ñi nga xam ne dañoo yor suñu ay kaaraange ndax ñoom it lu am solo la mm-hmm. xaj na dañuy wax ne léeg euh, buur aayit waaye dag ndax euh, euh, ni nga ko waxee noonu la léeg-léeg nga yam ci ay ndaw yoo xam ne xañ na lañ leen di waxal ñoom ñoo koy def waaye léeg-léeg nit ki dafa war a jaar fi war a jaar ndax it liñ ko war a defal ñu defal ko ko waaye jàpp naa ne eh, ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci commissariat yi eh, ay liggéey yu am solo yooyu lañ koy def saako bu ne nag lu eh, ñàkk pomme de terre bu fuus waaye nag loolee dañu la koy jéggal xam ne ku nekk ci liggéey ku nekk yaay juum loole dañ koy taloore ak ñoom te di ci waxtaan ak ñoom di ci labirinte ak ñoom ndax euh, ñaare boo demee ci taabal ji xañ na am na ci ñoo xam ne euh, niñ lay accueillir du baax comme ni muy amee hôpital amee ko fépp day am day am fépp ci foo dem rek ci secteur yëpp am na fa ñuy ndokkeelaat bu baax a baax suñu mbokku takk der yi ndax mën nañ leen comprendre ndax ñu ci bare bëri dañuy bàyyi seen euh, kër yi nekk ci àll bi nekk ak ñun ñu sàmmal suñu ay karange waaye euh, sëñ Mbacke wàllu ak yeete buñ jëlee matukaay yooyu dugg ci demen boobee ndax du leen euh, planqué ci seen ay liggéey ndax gis nañu ne dëkk bi dafay am jafe-jafe lu bëree bëri ci loolu ñu ci bëri euh, duñ ñemee dem sax ci commissariat yi mhm. ñu ci bëri ñu dem sax ci hôpital yi mhm. ndax jafe-jafe yu mel noonu day bari lool ndax da ngeen joxe ay numéro yoo xam ne ku am jafe-jafe daf leen di woo wala yéen da ngeen ci tombé wala da ngeen am ay ndaw yu leen nekkal ci police di leen informé waaw non du question sax am ay ndaw yu nekkal ci police di ñu informé waaye képp koo xam ni xam nga association bi rek te ko mhm. ñaare boo amee loo xamante ni ay ñaxtu la wala loolu naqari am na ci ñu bari ñoo xam ne dañuy ñëw di ñuy jooyal seen loola lu ci ëpp sax dangay gis kook bu ñëwee rek soo waxtaanee moom ba dalal ko rek da ngay gis ni kii kat wax dëgg yàlla ñàkk xam la waaye nekkul loo xamante ni sax xañ na la muy ñëw di reproché kee ni ñoo ma ñàkk jox sama àq sama yelleef euh, amut donte sax nag léeg mu am ci wax dëgg donte léeg-léeg mu am ci ndax comme ni nga ko waxee rek saaku pomiteer léeg-léeg du ñàkk mu def mu puus waaye nag it ñu jël li baax euh, tafee ko li li li bon bu ko defee lépp man ndax ne lu lu parfait lu total amul fenn euh, bu ko defee lu mel noonu bu amee toujours rek ñaare dañuy sol suñ dàll dem ba ci kilifa yi toujours waxtaan ak ñoom bu ñu waxtaanee ñoom rek moom bu wàccaatee bu fekkente ni dem na ci ay personnel wala ay élément rek bu dee hôpital wala police rek ñaare bu waxtaanee ñoom rek toujours danañ am ak gindikoo bu fekkente ni réeroo amante danañ ci am ak réeroo bu ko defee tamit loola nekk tawfeex boo xamante ni bu rëy lay doon ci ñun nekk tawfeex tamit ci kilifa ga nga xam ne moo jiite bërëb ba hmm. ndax moo gënoon kat muy dégg ci àll bi wala ci mbedd yi ñu naan kilifa sàngam kat euh, ay ndawam ña ngay doxalee nangam ak nangam hmm. te boobaa loola du rafet ci carrière am du neex kon au contraire sax ñoom ñi nga xam ne ay kilifa lañ ci bërëb dañ ñoo soxla lool te te te bëgguñu ba ci suñ corbillard yi bi ñu koy taxawal sax hmm. nga xamante ni ni ngeen ko gisee nii ca barab ya nekk na fi ñaar jamono yi ñu xoolee dëkk bi ñuy jël oto yu mbur yi li ci yeb néew yi nga gis oto boo xam ne day yeb ay nit dem marché wàccee di passager ñu woo ko ci néew mu yepp yóbbu te xamoo nu néew néewee ak jàngoro yi bi ñu gisee loolu mu metti ñu tamit biñ koy signalé signalé nañ ko préfet siñaale ko commissariat signalé ko police signalé ko gendarmerie mais li ñu ci gën a yéem sax mooy police ak gendarmerie ñoom dañoo waxoon ni ñii kat oto yooyu mun ñu leen a téye mun ñu leen a aaye loolu ci yeb yooyu ñu yeb néew yi ndax bu ñu leen ko aayee fan la ñuy def néew yi mm-hmm. ci lañ xalaatee nag ni kon Touba war naa am ay corbia comme yëpp xam nga kon ñun la ñu naqari woon sax wutalu guñ ko woon solution mais bi ñu demee ci ñoom ba ñu waxee ñun rek ci lañ daal di am solution mm-hmm. ngir taxawal ay corbia kon nga xamante ni nit ñi fu ñu mën di nekk rek bu buñ dee jaxasoo rek di waxtaan toujours rek yàlla da leen di bubbil bunt yoo xamante ne danañ ca mën a jaar di defar seenum dëkk di defar seenum réew ba defar sax adduna bi yëpp ci nii ci ci lañ ko amee nga xamante bind nañ lettre préfet bind ko monsieur le maire bind ko commissaire bind ko commandant bind ko yëpp ci année boobu damaa jàppatul at mi ko defee mm. waaye bañ demee ci ñoom takk der ñu ne nag oto yooyu dee leen ci wax ñoom dañoo wax ne oto yi buñ leen arrêté leen bu leen sëf néew ana fan la ñuy teg néew bi mm-hmm. mu nekk jafe-jafe ci lañ xalaatee nag ni kon nag ñun war nañoo soobu ci wutum kor bi ba moo ñu indi ñu inspiré wu ba sóobu ci kon tamit waxtaan woowu tamit gis nga loolu moo tax bu dee police wala gendarmerie wala beneen médecin wala ku mu mën di doon bu ci kenn ñooru sa moroom ku ci nekk rek na nga ko jege bu dee policier sa mag la wala sa rakk wala sa papa rakk la bàyyi kër ga wala papa wala keneen bu dee médecin tamit rakk wala bàyyi wala keneen la bàyyi kër ga moom ñun ñoo yem rek xañ na tën yi ba ñuy sol wala blouse ba ñuy sol di faj loolu rek moo ñu différencier mais amuñ beneen différencier ndax budul ñun ñoom duñ fi ne mm-hmm. kon ñoom ñun lañ gën a bëgg sax ci seen jëmmi bopp yi jërëjëf Serigne Mbacké activités yi nga xam ne sax euh, association bi doon na ko def diggante ba mu sosoo ak léegi xam naa dinañ ci ñëw muy lu mel ni corbillard yi nga xam ne euh, ku nekk ci dëkk bi ñu ngi lay romb di def ay activité ci biir dëkk bi ñu koy rafetlu bu baax a baax xam naa ñiy topp Waarwi TV euh, seetaan nañ activité yooyu waaye bu njëkkaatee ci sama sëriñ wàllu communication bi xam nga dafa am solo lool ci kuréel gi waaye euh, kii di association wallu ak yeete boo dikkoon ci Touba tey lan mooy mandargaal ne def ngeen ay màndarga yoo xam ne lu mel ni ay tableau wala lu mel ni ay publicité wala lu mel ni ay communique ngir ñu nekk ci biti comme tey ni ngeen ko defee le waa Waarwi TV and ak ñoom ci plateau yi nga xam ne tey képp ku leen seetaan dina xam ne ñii ñooy wàllu ak yeete bu ñu paree ñu joxe numéro yi ñu man cee woote ban liggéey ngeen ci def ci jamono yi ñuy waajale màggal ki waaw bi mu jubsee bi màggal gi jubsee yàlla dogal na kilifa amal nañ ci ay daje. amal nañ ci daje ci siège ba ci jamono yële amal nañ ci ay daje yoo xam ne bi ni ci groupe whatsapp yi lay doon. def li tamit lu mel ni communiqué mu ngi jàll RTS ak ay rajo yoo xam ne lëkkaloo nañu ñoom ci rajo locale yi rajo UCAB FM ak ak rajo Jant bi FM ak rajo Darou Mouti FM nga xam ne bii ni communique la yoo xam ne dafay jàll. Mm-hmm. di wane ne képp koo xam ne bii da ngaa màggal si te réer wala nga réer li moo xam xale la wala pièce dante wala lu man daan laal lu la réer. Mm-hmm. na nga woote ci numéro yi daa defar benn tableau defar ci lu war a mat fukki numéro ak juróom-benn wala juróom-ñett wane ne kenn koo ci jot rek dana la gindi mm-hmm. kon. defe naa loola mooy fi ñu am na tamit lu ne ay gilet yoo xam ne bii ne seen mandarga lay doon nga xam ne logo ba na ci seen seen euh, carte bi moom lañ ci def ak ay banderole yoo xam ne bi ne képp koo xam ne yàlla dogal nga jege seen kii boo ko gisee seen fi ñu nekk fi ñu siège boo ko gisee danga nga xam ne ñii ci ñoom lañ bu ko defee euh, ci loolu ci lañ tollagum xaj na ak ay émission ci télévision yi gis ngeen ni ko sama jëriñ wax sànq bërki démb euh, sama jëriñ doon na def benn émission Walf Fadjri Walf TV bu ko defee yooyu ay mbir la da koy xamal ki ñëwagut xamal ko ne ko boo demee Touba te réer la man maa ngi doon wax sax ne ko ku ko mënoon tey màggal si soo ko manee comme wan nañ la tablo bi ba nga gis ko yooyu soo mënee dem ci sax sa sibeer bi nga tiire ko yow am ko donte ko xale la bu ndaw sax boo ko mënoon tey eh, bu dul yëpp it benn numéro nga takkal ko ko ñu ko bàyyi jagal di saa si ne dana waral saa bu demoon ba réer rek ndax képp ku réer am numéro sa réer du yàgg waaye li jaaxal si mooy koo xam dafa réer ba noppi te xamul numéro yàlla mooy xale bu ndaw boo xam ne mënta ko defee bu dee ku mën a wax ñun daaw am nañ kaa boo xam ne bi mu réeree ma ne ko xam nga si numéro papa mu ne bu ñu woowee papaam moo jëkk yëg fi mu jëm si woon ne réer na moo woo yaay soxnaam ne ko ana diw mu ne ko diw de dafa jëm kër maam mu ne ko réer na bu yàgg nga xam ne ñun laataa kenn di ñëw ñun tam man xam naa ko sama dëkkandoo la fi mu jëm si woon nijaayam jooju ba yóbbu ko nga xam ne daal képp ko xam ne yàlla dogal ko manee nga sa numéro xale wala nga def ko ci poosam dana tax saa bu réeree yàlla mën naa dogal réer moom du mën a ñàkk waaye nag réer rek muy wéy ne moom mën naa ñàkk moom ni ko gisee daal su communication bu gënee law mën naa dem ba lu mu yàgg-yàgg damay wax ne quinze ba trente minutes li la réeroon war ngaa mën waaw loolu daal ci lañ ci tollagum ci ay ay ay yëngutu jërëjëf euh, sëriñ la jërëjëf sëriñ Mbacke jërëjëf Cheikh Mahamadoul Bachir Sylla mi ñu féete ci wàllu xarale gi di sant euh, sëriñ Fallou Sylla moom itam Bachir xanaa kon dañuy def benn pause euh, bu ko defee daal di dellusiwaat eggal li nga xam ne moo di jataay bi kon Bachir ñu bàyyi la nga daal di dem dikkaat ñu àndaat ak suñu gan yi xam naa li war a waxtaanee bari na. waaye xam nga jamono ji waajtaayu màggal ci lañu ne te xat na lool ci ñoom waaye ñu ngi leen sant baax di leen gërëm ci ànd bi ñuy ànd ak ñun ci biir Waarwi TV kon Basiru ñu dem dikkaat incha allah. jërëjëf euh, jërë ngeen jëfati mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci waar wi TV waaye di ànd ak ñun ci central bi ñu ànd ak Serigne Silla ci wàllu xarala gi moom itam ànd ak Mahamadoul Bachir euh, dama ne woon nañu pause damaa jàppoon sax sama sama cameraman bi sama technicien bi dafa may andil ndékki waaye daa mel ni <laughs> andiwul ndékki <laughs> waaye amu solo <laughs> dinañ ko jëmal siyaare waaw mi nga waaw ndékki laa ngi ñëw kon na gaaw tey ñu ànd ak euh, waa ak euh, yeete euh, ñu ànd ak ñoom ci waajtaayu màggal gi ñuy liggéey liggéey boo am solo xam ngeen ne activité yi nag dañ koy amal lu dul màggalit sëriñ Mbacke leeral na ko ak sëñ Mortala ñoom ñi nga xam ne ànd nañoo ñoom tey xam naa ne ci biir màggal gi daañu ànd ak ñoom ci màggal gi ci activités yi nga xam ne dañu koy amal ndax wax it day am lu koy firndeel xam naa ne ñii topp Waarwi TV yàgg nañu leen a gis ci activités yi nga xam ne dañu koy amal ñuy partenaire ak waar wi TV di leen woo ci activité yoo xam ne dañu koy def waaye sëñ Mortala ci wàllu communication euh, war ngeen war ngeen cee gën a mën a xoos bu baax a baax de di fàttaliwaat suñu mbokk yi nga xam ne dañu yëngu ci wàllu communication ñuy defal yàlla ci ci gu ci association bi ndax association bi suñu borom rek lañuy la ñuy defal du association boo xam ne sëy la boo xam ne day wàllu politique jàppale ab kooko moom bu wootee war nga ko mën a tegal ay sart ci fayeku ko xaalis bu weex tàll ndax am na lu mu ci gagné waaye ñii nañ jàpp ne Serigne Touba lañ koy defal kon ñi nga xam ne dañuy liggéey Serigne bi ci wàllu communication war nañu leen a rapproché bu baax a baax ànd ak ñoom ci liggéey bi euh, xam naa ne dinañ la bàyyi nga soññ taskatu xabaar yi pour ñu ñëw jàpp ci liggéey bi ndax communication mënul ñàkk mm. ndax mooy tax ñu ci biti xam liggéeyu euh, kër gi waaw na comme ni nga ko waxee rek moom daal xam naa ne ndax day ñoo xam ne yàlla moo dogal ak bëgg moo ci jiitu mooy volontariat la nit ki mooy ñëw ak bëggam soobu ci def ay moyens boppam xañ na ni ko euh, sëñ Mbàkke wax ci at yi lañ ci am ñu leen ci xaw a jàppale ci biir noonu nag la ñuy woote di taalal loxo ñëpp di xam ne koo mën a doon mën ngaa réer wala nga réer la mm-hmm. maam tey mën ngaa xeeb mbir mi bés waaye bés mën naa ñëw mu dool dal ci sa kaw bu ko defee nag loolu yëpp nag mbir mu bu jubee ñëpp xam ne dafa jub kenn ku ne da nga ci jàppe comme nanga nga ci mane mm. nekk nii ñuy woo suñu su journaliste si moo xam site internet yi la moo xam rajo yi moo xam télévision yi moo xam ku mu mënta doon ba ci yi nga xam ne bii ne day génn réew mi mm-hmm. ñu ngi leen di sàkku ci ñoom daal ñu gën ñoo jàppale ci communication bi ndax suñu sañoon réer dañoo wax ne moom du mën a ñàkk ndax booloo hmm. juróomi millions yi nit wala lu ko fu ñuy daje fu ne réer du fa mën a ñàkk waaye nag réer moom di wéy rek ba nga xam ne day jural ay jafe-jafe ñenn hmm. hmm. sa bopp la ndax liggéeyal sëñ la sëñ ne da ami gan waaye gan ñépp gani sëñ bi kon nag képp koo yàlla dogal na gani sëñ bi damay wax ne saa su ne boo defee mbir fi bërëb soxlawaat ko jëli ko wër ta jafe hmm. xam nañ ne lépp sëñ bee ko moom li feeñ ak li nëbb kon nañ jël lépp delluwaat ko ci sëñ bi képp koo xam yàlla dogal na nga am télé wala nga am rajo wala nga am site internet nga dimbale ñu ci ubbil ñu communication ubbil ñu say bunt ci ñu mën di communiquer di wax ak nit ñi fi ni jaar ba nga xam ne bii ne réer moom su mënta ñàkk tamit képp ku réer le balaa mat trente minutes li nga réeroon dellusiwaat ci say loxo mm. ñoo ngi tàllal ñëpp loxo daal mm. tey ñaan tamit ñu dëppoo ci ak ngërëmul sëñ bi ndax kat niñ ko waxee saa su ne dangay jëf mbir ngir yaakaar ca waaye lii nag moom dañ ci am yàqin mm. ndax déggoon naa ko ci biir wax ci sànq teranga lu mu neex neex neex lu mu bari bari bari bari su fekkee ni bii ne xale bi gën a ndaw si kër gi dafa réete gisuñu ko dus ko xewloo wala ki koy xewloo du neex ci moom kon ñu ngi ñaan daal képp kon yàlla dogal nga am moyen ci communication ñu ngi lay tàll loxo di ñaan nga dimbaliñ ci liggéey bi mm. ba yàlla dogal gani sëñ bi kenn bañ cee réer wala ku ci mën da ñàkk réer bu réer réer la gi bañ a yàgg mm. barakallah jërëjëf xam naa wàllu ak yeete sama technicien bi euh, dina ma officiel numéro yi ci suuf mm. bu fekkee mi ngi daw ci baaru écran moom ngeen di gis noonu man ngeen jël numéro yi benn rek bu ngeen ci woote di ngeen jot euh, achation wàllu ak yeete fu ngeen mën a nekk ci biir Touba it dañu leen tegtal ba ngeen jëm fi nga xam ne moo leen taxoon a jóg. kon numéro yaa ngi noonu man ngeen koo jël mi ngi noonu di doox ci suusu écran bi euh, muy waa wallu ak yeete. Euh, waaye sëñ Mbacke wàllu ak yeete ku ko wax xam ne nit ñi dañu leen fekk si fa ngeen nekk. yaakaar naa su ma jumul soriwul leen kër sëñ Abdou Lahad. foofee ndax da ngeen fay amal ay bernde. ndax. da ngeen fay màggal ndax ñi réer dafa am lu ngeen di leen teral ndax yaa ngi doon wax sànq sa biir wax ne nit léeg-léeg mu dikk fa sonn sonnaay boo xam ne day bëgg toog màggal ak yéen. Mm-hmm. ndax kookee dangeen koy satisfaire ne ko boo dikkee lépp loo xam ne boo aggoon ci kër ga nga xam ne fa ngay dal mën nga ko fa am ndax da koy am ci seen siège boobu nga xam ne wàllu ak yéen taxaw nañ ko ci wetu ko sëñ Abdoulaye Mbacke. Mm-hmm. waaw jërëjëf sëñ Koso ci laaj bi euh, loolu moom képp ku dal ci kër rek daanaka loo waroon am ci kër rek mm-hmm. Euh, boo ñëwee foofa it boo mujjul dem sab dal tamit ngir sonn wala dara it euh, da ko am foofa ndax lépp ñoo ngi koy fàggandiku donte metti na nag te diis ak ñun ndax ñi ko séq ñëpp dañuy jaayante rek waaye ñëpp nag dañoo xaw a mel ni sëñ Mbàkke Mbeng euh, waaye nag da koy jaayante bu baax a baax a baax na ngay taxawoo sa kër nga taxawoo ko barab yi tamit ndax barab yooyu dañoo bari ndax fi mu ne nii euh, may wax ak yow tembe rek daanaka am nañ juróomi site yoo xamante ni pare nañ yoo xamante ni suba normalement war nañoo tàmbalee démarrer ngir képp ku ñu yittewoo rek ci ku réer wala nga réerle dara ñëw fa euh, base centrale bi nag moom mi ngi nekk ci ci ci buntu armeel yu jëkk yi euh, mooy armeel yi ñuy wax usul muhaab ci barabu soxna may Mbàkke bi mm-hmm. foofu mooy base centrale bi jàkkaarloo ak jumaay Tuubaa ji jàkkaarloo ko euh, fi ñuy jullee it mm-hmm. foofu mooy base centrale bi moom ku fa ñëw moom da nga ñu fa fekk ku réer tamit bu mënatoo àgg fa nga jëm tamit danañ la berndeel mm-hmm. daaw sax wax dëgg Euh, yëf yi jéggi woon na dayoo ci ñun lool ba mujj sax euh, ay mbokki taalibe yu baax sax ñu mujjoon di baaxee sax loo xamante ni continuer nañ ko sun màggal waaye konoon dana xaw a sant ñang hmm. waaye wax dëgg yàlla mbokki taalibe yi ñu ci bari lu baax rek moo leen ñor bari ci ñoo xamante ni jaayante ni seen gan ñooñu kat wax dëgg yàlla bu ñu fa naree sonn lu ngeen soxla ñëw leen jël ko fii hmm. daaw fi mu nii màggalu daaw rek daanaka ñoo ngi ci su ma juumul ay borop 700 nangam mille yoo xamante ni foyeguñ ko ndax lu mel noonu moo dal ci suñ kaw rek te te te programmé wuñ ko woon te association bi it amul woon doole tamit géré ko te it nit ki bu demee ba sonn jëmatul fa jëm ah mënoo koo seetaan faw lu war ci moom danga ko def sa kéemtu lay kàttan mm-hmm. waaye ni ma koy waxee rek en tant que yaa ngi yëngu ci loo xamante ni bëggu sëriñ ba la rek toujours bu méttee rek sëñ bi sëñ bi sëñ bi feeñu la mm-hmm. euh, feelu la boole laak ñu la ñu la dimbale mm-hmm. moo tax tamit wax dëgg yàlla lu mu tar rek lu ñëw rek yàlla danañu booleek ñu ñu ko gérélee ba mu jàll di sant ñooñu bu baax a baax ay mbokki taalibe yoo xam ne sax bëgguñ sax ñu tudd seen tur waaye di leen sant bu baax a baax daal e, di sant tamit Touba ca kanam hmm. e, ndax Touba ca kanam tamit ñetti at a ngi ni yoo xam ne e, biñ ñëwee ci wàllu yeete wax dëgg gis nañ ni wàllu yeete moom am na jéego yoo xamante ni nag munu ko woon hmm. ba tax na boo gisee suñu bànqaas yi gën a law nii sax di gën a yaatu grace à Touba ca kanam mm. bërki démb dong la ñu jébal segu cinq cent mille mm. ngir jàppalee ñu ko ci ci ci ci màggalu Touba ren bi mm. euh, di sant tamit euh, murit ndigal benn kuréel la bu nekk Italie boo xamante ni ku ñuy wax Cheikh Bassirou Diop moo ko jiite boo xam ne yàlla dogal mu dégg association bi comme nii muy ku lu baax ñor mu ni man moom lu jëm ci Serigne Touba ak dëkkam bi fu ma ci dégg lu baax danaa ci soobu ba lu baax fu mu ca yem ma yem mhm. ah kon nag moom niru na ni kon ñun li ñuy def ba léegi lu baax la mhm. ndax bu bërki démb rek sëñ Basiru si la mii euh, ñi ngi ko doon dalal ci xasida online monde bi TV mhm, kon jàpp nañ ne li ngi def li ñuy def ba tey lu baax la jiite fa kuréel gu baax gu am doole gu ñuy wax murid ndigal ñoom ñoo jëkk a dugal seen alal ci association wallu ak bu buñ nee buñ doon laaj association wallu ak yeete ne kan moo leen jëkk a dimbale murid ndigal googu la ñuy wax te à sëñ Basiru moomu moo ñu lawal suñuy bànqaas ba mu egg foofa ñoo ne tamit bi ay taalibe yoo xamante ni lu baax rek moo leen yor te bëgg nañ toujours di contribuer ci développement Touba ak di dimbale nit ñi nga xamante dañoo néew doole ak ay yeneen yoo xamante ni sax euh, ca groupe ba nga xamante ni ci lañ regroupé wu ñun ñëpp sax ñu delloo ko sax ci njukkal delloo sax ci njukkal borom Touba bi ñuy taxawu corbillard yi bari na fa ñoo xamante ni sax amuñ membre walloog yeete mais dañuy jëf ci walloog yeete ngir rafetlu seenub liggéey mhm. euh, fii mu ne nii tembe nag euh, am nañ euh, juróomi site yoo xamante ni daanaka pare nañ pour fonctionner suba incha allahu rabbi benn bi mooy umul xuraa mhm. bi nga xam ne sëñ Mor Talla Wade mii moo ko jiite mhm. ak nattangoom ya fa nekk di leen sant bu baax sëñ Mbaye Sey ak sëñ Moustapha Samb ak Abdou Fall nga xam ne daanaka gannaaw base centrale bi nekk barabu soxna May mooy deuxième base bi nga xam ne moo ëpp doole ci lu muy liggéey ci ci ci màggal gi euh, ak Baye Jagal communication Baye Jagal moom daanaka euh, mën nañ ni kenn du feeñ wala kenn du réer tamit te te jaarul ci moom nga xam ni moom euh, ñaari place am yi mu am ñëpp da koy joxe cent cent ba màggal gi jeex di ko sant bu baax te di ko gërëm waa UCAB tamit dañ ciy jàpp tamit bu baax a baax a baax a baax di leen sant di leen gërëm ak jant bi tamit FM dañ ciy jàpp di leen gërëm Euh, fi mu ne nii tembe tamit daaw rajo Daaru Musti sax ñëw na dolli ko si ci liggéey bi mm-hmm, mm-hmm. di ñu ci jàppale nga xam ni kon li ma la doon wax léegi rek ni maanaam euh, fexe ba toog toogin woo xam ne bu sëñ bi ñëwoon doo soppi saw toogin rek lu mu yàgg-yàgg rek lépp lu baax rek dana la fa fekk mm-hmm. fi mu ne nii tembe ci loolu lañ toon ndax ñi ma lay tënkal ñëpp daanaka dañ ñoo xeeñ ci ñu rek daw ñëw ñii seeni i moyen ñii seen alal ñii seen doole di ci jàpp seen kéemtalaay kàddu jërëjëf ni nga ko waxee ñuy ndokkelaat bu baax a baax euh, waa tubaat ca kanam nooru daare ni mhm. ci liggéey boo am solo boobu ñu ko def ah mais kon sëñ Mbacke fi mu toll yéen ay koppar de ndax yéen a ngi seeti li nga xam ne moo di autorité yi lu mel ni maire wala chef de quartier yi wala sëñ Cheikh Ndiaye chef de quartier bi ndax ñoom euh, dëkk bi ñoom lañ ko dénk kon li ngeen liggéey ñoom ñoo ko waroon liggéey mhm. ndax ñoom itam ñu ngi ci dugal seen loxo. waaw autorité moom ñëpp xam nañoo welloo yeete ñëpp dem nañ fa fi mu nii su ma la doon indil archive yi mm. ni leen bind ci lettre ci ay préfet ay maire euh, ne suuf la toll waaye na xëy na seen i liggéey da leen di gàllankoor ba tax na yenn i tontu yi duñ ci daanaka sax ah, da ngeen politique nag da ngeen war a politique nag euh, euh, waaw loo loolu loolu mooy sooxa <laughs> bi gën a metti ndax dafa bokk ci ci jaayante bi mm. ni luy niroog politique bokk ci ah. waaw luy niroog politique bokk ci lépp rek fexee liggéey loo xamante ne mu ne woon a dégg benn bànqaas man ma féete ba wàllu politique <laughs> lu ma raadu rek andi ñu <laughs> dañuy dañuy dañuy dañuy ragal rek fi fi gars yi di buur jëm rek ñu mujj ñu buur jëm <laughs> waaw waaw te dañoo bëgg a tàmbalee ci sëñ bi yem ci sëñ bi rek ah, waaw moo moo moo tax euh, waaye nag li am solo rek mm-hmm. euh, mooy kuy kilifa rek ñu nangu la sa kilifteef euh, te jiital la mm-hmm. te fexe ba nga xam ñu mm. te daw suñ kéemtulaay kàttan rek loo xam ni ku ñu fa fekk rek di ñu koy xeeb mm. eh, te loolu ba kuréel gi sosoo ba nëga ni wax dëgg yàlla amut wax dëgg yàlla kenn mosu bu ñu fekk suñu liggéey di ñu di ñu xeeb mm. lii ngay wax sax màggalug daaw rek ci mm. wàllu police eh, xawoon na nañoo dal eh, ndax fële ñu doon dajale da non màggalug daaw jeeg la fi ñu doon dajalee suñu xale yi booba ñu xawoon a am jafe-jafe fu ñu leen dajale bi xale yi baree siège ba fees ñu àbboon geneen kër di fa dajale xale yi noonu xam naa am ñu dajalee xale am ñu daw dem commissariat guy mbind ak guddi ni am na ñuy dajale xale yi fee <laughs> automatiquement ñu daal di fay def descente daal di jàpp suñu kilifa gis sëñ mbay Cissé daal di koy yóbbu ah. euh, waaye li may wax rek ni looy def rek mm-hmm. kilifa yi nañ ko yëg mm-hmm. te jiital leen ko mm-hmm. ah, bañ ko yóbboo tamit ñu xool xam ne ñii ñaa waa Waalo yeeta la euh, Mbaye Cissé mooy seen kilifa euh, wax dëgg yàlla yëmatuñ sax ci ba ko <laughs> mais sax dañ ñoo far wax nañu problème bu ngeen am woosi leen ñu ñu ñu ñu taxaw ci ah, problème bu ngeen am woosi leen taxaw ci moo tax rek lu mu ci mën di doon rek kilifa yi ku ko war a yëg yëg nga ko euh, xaaruñ nag koppar buy jógee ci kenn mm. euh, xaaruñ nag koppar boo xam ne mi ngi jógee ci kenn donte ku ñu dimbale ñu jël mm. ndax fi mu ne charge bi ñu yenu moom mm. wax dëgg fa yàlla diis na ci ñun diis na ci ñun nii may waxee ak yow rek daanaka li ma wérte woor dépensé guñ leen lu jege un million ci màggal gi ci wàccaayu màggal gi nii nii may wax ak yow nii fii may wax ak yow nii tembe tembe tembe ñoo ngi programmé bâche yi war a jëm umul ak ay rajo te yooyu yëpp sax fi mu ne euh, ko ku ñu ci mën a dimbale tamit jàpp ci sa kéem laay kàttan tamit ñu sant la ah boole la ak Serigne Touba mi am fay ndax ñu moom amuñ dara amuñ luñ fayal waaye nag lépp nag dañ koo dugal ci bis bi te bis bi sëñ bee ko moom lu ci waaye def moo lay fayee boppam ñu ci mën a jàppale tamit noo ñu mën a jàppale rek ñoom la ciy sant bu baax te di la ci woo tamit. jërëjëf euh, sëriñ Mbacke xam naa ministre Aminata Lo Dieng mi ngi lay bàyyi xel xam naa ñoom dinañ ci jàpp euh, nga xam ne ñoom itam war na ñëw ci dëkk bu sell bii di Touba te moom it lu baax rek la ak euh, ñi nga xam ne dañuy def lu baax te sëriñ bi rek ñor leen te kenn du leen gis ci écran yi jàppal na ñooñee ñooy defal suñu borom tabaraka wa taala mm-hmm. te war na jàpp ci lii ndax fu am murit nekk ci àdduna bi rek xamal ni ñii li ñu def yow lañ koy defal mm-hmm. ndax lii ñun ñëpp la waroon ndax ku ne sëriñ Tuubaa aslamtu nafsi mu ne la sama mbég bu dee sa mbég mm-hmm. bis bii bu ñëwee nag ma santale sama borom kenn ñëw di ko santale boromam am ay jafe kookee yow yaa ko war a wallu yaa war a bokk ak moom loolee nga xam ne mooy tis wi boo gisee suñu kilifa yi léeg-léeg yàlla na yéex bu accident amee ci biir màggal gi ñu déplacé wu ci biir màggal gi dem fekk nit ñi ci hôpital ya dañoo xam ne rek li leen war mooy ñii ñëw ñoom lañ ñëwal ndax Cheikh Al Khadim sa nafxin bi la dararin jariñ la lu àndut ak loro xam naa dañuy ñëw ci tuur bu mujj bi rek ndax waxtu wi xaw nañoo xoj te it eh, xam nañu nekk ngeen ci ay ndax ni ngeen ko waxee liggéey bi du liggéey bu ndaw dafay nuru liggéey bu ndaw boo koy dégg waaye boo demee ci profondeur ba xam ne di liggéey bu ndaw xam naa bu ñu dikkee sëñ danga dañu tënkal ci gàtt association bi yan activité la defagoon ba mu commencé ak léegi ak lan moo ne ci kanamam waaye laata ñu ñëw ci loolu dañuy jox euh, sëñ euh, Mortala benn laaj mu boole ko ak tàggoo tàggoo nag la bu dul tàggoo ndax xam ngeen dañu koy ànd ak yéen ndax antenne bi dañ leen koy bàyyee incha allah rabbi diiru màggal gépp daañu ko ànd ak yéen lépp loo xam ne aajo na ñu yëg ko man ngeen ne bañ a tuxal seenu seetaan ci waar wi TV incha allahu rabbi lépp da ngeen ko ànd ak ñun incha allah ci biir màggal gi waaye boo fekkoon tey da ngay soññi ñi nga xam ne ñooy membre yi bëgg naa it euh, nga xamal laa ne membre yi nekk ci yeneen dëkk yi bu ñu dikkee ndax ñoom ngeen di bàyyee liggéey bi wala ñi nga xam ne dëkk nañ ci dëkk bi. te miin dëkk bi te xam dëkk bi ndax it bu fekkee tey association bi dafa ay ay membres yoo xam ne dañoo nekk Bambey waa ñu nekk beneen dëkk. wala ñuy ay booy dikkoo yoo xam ne xañ na euh, euh, association bi neex na leen waaye taxul ñu miin dëkk bi ndax ñooñu ñu àndee gan yi dañuy ñu ànd gi jeex. loolee ndax association bi euh, def na ci liggéey bu am solo ak it soññi membres yi ci liggéey bi xam ne liggéey Serigne Touba rek la ñu war koo jàppaat bu baax a baax nga boole ko tàggoo ñu joxante ndox daje ba ci beneen yoon incha allah. waaw jërëjëf sëñ Koso comme ni nga ko waxee noonu ñun daaw amoon nañ cas bu xaw a demee nii. koo xam ne dafaa ñëw am ku ne ma nee na daa bëgg a bokk ci liggéey bi waaye moom laataa muy kii dafa réer ba dañ koo gindi ba mu sonn ma ne ko kuy kuy kuy kuy wét ku ko gindi mënta gindi waaye gindi kenn waaye nag dàq wut ak nag man ngaa nekk ci biti te bokk ci waaw bu ko defee say xalaat di ñëw say cotisation di ñëw bu màggal jotee sax nga ñëw waaye nag duñ la ko bàyyee dañ koy ànd mm-hmm. masalan tey ñun fee ñu dëkk bu fekkoon dafa dëkk ca Bambey wala mu dëkk ca feneen ñëw màggal mm-hmm. boo dikkee dañuy bokk liggéey mm-hmm. boo dikkee fa nga mën a yem nga di fa yem xañ na nag nañu miine dëkk bi yow doo ko ni miine waaw waaye bu ko def mën ngaa féeti ci dalal gan ndax lu am solo mooy dalal nit gis nga nit képp ku ñëw ci yow nekk xale man xale ñëw na ci réer na ñëw ci place bi ma dalal ko jox ko yi xale baaxu am maamam bi mu ñëwee di ko jël si dana du dem <laughs> ndax maamam bi ñëwee da koo tëkku xam naa sax xëy na bokk na ci loolu laajul waaye jafe-jafe yooyu donte que jafe-jafe ñun ñoo tànn tekk ñi nar a amee jafe ñu dox seen diggante ak jafe-jafe yooyu aakima ko mm. kon du ca mën a ñàkk ñun for nañu xale nijaayam ñu di ko def ay recherche xale bi mu ngi jógoon booru njëngéen di def ay recherche ba jot bi nijaayam dikkee dafa ñëw rek tëkku ko tëkku yu métti yow bu ma la jàppee ma ne ko sëñ bi dalal li ngay def yëpp dund. erreur nga def waaw dalal dalal ne ko waroon nga ñëw warmaali sax ñun xanaa nga amuk dal ba ba tàggoog suñuy bët doog a def dëgg yàlla waaye eh, loolu su amee kooku man naa toog ngir dalal nit ki dalal ko ba nga dal su dee fu ñu dem mën naa ànd ak ku fa xam mu yóbbu ko foofu donte ko miinul ci dëkk bi waaye daal bari na la soxla woo lu dul ne rek nga dëkk ci dëkk bi waaye mën nga fee ñàkk dëkk bu noppi bokk ci liggéey bi liggéey bi daal képp ku di taalil wala képp koo xam ne mbégteem seen tubaab sa mbégte la moom bunt bi ubbeeku na ci yow bu ko defee nag la nga man rek nga def ko sant daf laa lenn lañ gis loo xam ne du wàcc nit muy julli waaye def na la defe ko ni nga ko mëne mm. boo ko mënee ñu nga defe ko ni nga ko mëne ñàkk dëkk ci dëkk bi moom teewut nga bokk ci kuréel gi mm. am na loo man boo dikkee ngay jëfe loola waaye ñuy soññaat ñëpp daal ci dalal gi dalal nit daal moom nañ ko jàngaat ku ko mënut nga ko jàngaat ko xale mën nga koo dalal daal ñi ma ko ba mbokkam dikkee ba koo jël si moom du bëgg dem te loolu yëpp mooy dalal gi nga koy dal ak nooy gi ngay nooy ak li bëgg-bëggam kon bu loolu soo xam naa ñuy sant ñëpp rek di sant sama jëwriñ sëñ Mbàkke bu baax baax a baax a baax waaye tamit di sant sama eh, buntu mooy sëñ Mbay si mi nga xam ne moo jiite communication bi mm-hmm. waaye tamit di sant sëñ mi jiite liggéey bi mm-hmm. di sant tamit ñi ma bàyyi ginnaaw mooy ni ko sëñ waxe sànq ñi ma bokkal liggéey bi fële mm-hmm. mooy sëñ Modou Dieng sañ Mbay Sey sëñ Moustapha Samb sëñ Abdou Fall sëñ Mara sëñ Xaasim Mbeng géwél géwél wala yeete ak ñoom ñëpp ñu ngi leen sant ak ña nga xam ne tamit ñoo ñu jàppale ca liggéey ba foofu liggéey bi ci aw waaye lépp loo nekk buñ ci dikkee dañ la fekk café gi ñuy segg dañ soo xam day jékki-jékki doo yëg dooti mooy jékki-jékki di sant a baax sant yow sëñ Koso di sant sëñ ci liggéey bi ak sëñ Fàllu di ñaan tamit fépp foo xam ne am ngeen fa yéenee ak yàlla suñu borom yóbbu leen fi ci baaxuk sëñ Tuubaa li sëñ bi diggee daal ci bés bi yàlla nañ ci daje moom waaw ah, ndax mbir la moo xam ne bii ne kat balaa ñëwati di déwén kon comme yàlla fekk nañ ko nañ ci soobu ba jeex tàkk amul lépp lañ ci man nañ ko ci jëfe liñ mën ñu yéene ko ba déwén ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Mortala cant ak ngërëm ñeel na la waar wi mi ngi lay delloo ak cant ak ngërëm ndax xam nañ ne jot amul te temps seer na te bàyyi ngeen seen te yëpp ñëw ndax naam bu dul ak yeete it xam nañ ne ku ci nekk boroom kër nga te am na loola war ci sa kër kon jamono ji boo nekkee ouvrier mbaa nga nekk sëriñ daara it yaa ngi kurkuri ngir bu gan ñi nga am looleen leen terale naam sëriñ ba ci teg loo xam waaye it faw ñu sabab lu jikko ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la jox dox day incha allah rabbi ba jeneen jëmmi jamono sëñ Mbacke xam naa laata ñuy tàggoo bëggoon nañu nga wax ñu association bi activité yi nan la koy doxale ak cotisation yi naka lay demee ndax euh, moom sëñ bi bu nekkee umul euh, xuraa keneen ki nekk Bambey keneen ki nekk France keneen ki nekk Italie da ngeen di réunion ci WhatsApp wala yan jotaay jotaay yi naka lay demee ak it yi nu muy demee yooyu bëggoon nañ nga leeral ko ñi ñuy seetaan. waaw jërëjëf ku ci bëgg waaw jërëjëf sëñ Koso. Mm-hmm. Euh, association bi moom euh, lii la ciy boole rek mooy daanaka lii boole nit ci association yu bari muy carte de membre. Mm-hmm. buy mandargaal association bi ak yow mi ko amee euh, ñu mën laa identifier soo amee sa carte de membre mille francs soo paree weer wu ne 1000 francs ngay cotiser at mi 12000 yaa ngi ci walloog yeete yaa ki ca bokk daaw jéeg ak daawaati jéeg. ak ñi ko sos yéen a ci bokk yam euh, ndax lépp rek lëggéeyal sëñ bi rek amul lenn lu ci génn cadre lëggéeyal sëñ bi euh, sànq li nga doon laaj sax activités yi ñu jot a def bari na sax activité yoo xam dañ ko daan def sax daawuñu ko fesal nii mm. ndax comme ni nga ko gisee nii lu ci bari média bi xawoon a sooxee mm. te it daanaka ñun liñ daan def booba dañ koo jàppee woon mm. ni war a def nàngam rek ñu wuutu ci sëñ bi defal ko ko rek mm-hmm. noonu lañ ko jàppee woon fi mu nii sax daanañu sollicité sax ci ay njaboot li gën a doy waar ay njaboot yoo xam ne dañoo dañoo jote sax ba sax jaarootuñ taal mm-hmm. bay ber sax ay cin ci biir kër yàlla dogal daanañ ci intervenir ba cin yooyu sax mujj nekk benn yàlla daana def loolu daa yooyu bokk na ci ñu doon taxawee mm-hmm. fi mu ne ni ngay gis ni xale yii di taxawaal yu ci bari mm-hmm. Touba dafa rëy neexut a neexut a sécuriser eh, ci li may wax rek ni ñun population bi war nañoo jege police ak gendarmerie di leen dimbale ci bari Eh, ni ma lay wax rek am na fi benn xale boo xamante ni sax mas na fee réer jógee Vélingara réer ay bokkam yàlla dogal ñun ñoo ko xeñtu ba xam ko ba gis anam yam nekkee ak condition yam nekkee mm. doy waar lool ñu xeñtu di def suñuy démarche ci diirub la jege ñaari weer mm. ba ba ba recensé ay bokkam xam fi mu nekk ba yóbbu ko te man nga dëkk ba Vélingara mm. yu mel noonu yu bare baree bari lañ ci dox dëkk bi ni ngay gis fi mu ne nii daanaka lu ëpp juróomi téeméeri xale ñu ngi fanaan ci mbedd yi nii ñun dañoo volontaire woon jóg guddi ay fan daanaka lu jege juróomi fan di recenser xale yu bari di leen xool di leen laaj waaye da ngay gis xale yi fanaan ci mbedd mi ne suuf la toll te fii ngay gis ni association bi am na ci projet boo xamante ni waxtaane na ko tëgg na ko ba pare ngir gàttandu xale yooyu ba nga xamante ni ñii dëwee wala ñii sàcc wala ñii yóbbu feneen mm. du am ci yoomu yomb ndax xale yooyu koo ci laaj noo tudd di la lay wax mm. wala Moustapha wala sëriñ wala baara nga xam ne hmm. ñii ay doomi jullit lañ hmm. nga xam ne ñii ay doomi jullit lañ te jamono ji yàqu na hmm. rawale xale yomb na euh, te toujours nga gis koo xam ne danaan sama doom ba ma ko gëjee gisee léegi xam naa bu ma gisoon tey du ma ko xàmmee kon nga xam ne xale yi war nañ leen a saytuwaat bu baax a baax a baax boobu ci la sun xel demoon ñu xale yi taxawaalu est-ce que réellement guddi bu jotee am na fu ñuy nekk waaye da ci gis xale yu bari fi la ñuy fanaan yàlla dogal na waxtaan nañ ci ba nañ ci projet waaye fi mu ni nga koy gisee rek euh, problème mu mooy sooxe ak ñàkk gi ñu ñàkk a xam mais pare nañ pour gatandu xale yooyu pour encadrer leen ba nga xamante ni bu seen i waajur feeñee wala buñ feeñu tamit buñ màggee ay jullit lañuy doon ay taalibe la ñuy doon bokk ci liy yokk euh, xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, euh, di sant bu baax nag maanaam mm, Waarwi TV mm. sëñ Basiru si la mm. ndax wax dëgg yàlla moom xoolul koppar ci ñun xoolul dara ci ñun ba mu xasee xam ni lii daal moom luy jariñ taalibe yi la luy jëriñ jullit la ci la engagé wu ni lu ngeen bëgg rek nu ngeen ko bëggee ak fu ngeen ko bëggee ah. loolu kon amuñ ak payam hmm. ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax hmm. di sant yeneen groupe de presse yi ci jàpp yëpp hmm. euh, UCAB FM sunu partenaire la ñi ngi koy sant waxoon naa ko léegi di ko yeesalaat rek jant bi FM ñi ngi koy sant di sant rajo Daaru Musti euh, di sant tamit baay Jagal communication moom nag di ko beralaat ak cant nag moom boo ñëwee loolu ni ñaataa koy def mu ni def naa ko ngir sëñ Tuuba damaa bokk ci wàllu bi place am communiqué yi ñu doon dugal ak yëpp noonu la ciy taxawee moom it di ko sant bu baax waaye tamit di sant nag waa murit ndigal gi nekk Europe mm-hmm. ci seen njiit ñaar rek laa ciy tudd mu boolee ña fa nekk ñëpp mm-hmm. muy euh, Cheikh Bassirou Diop ak sëñ Mor Tandine mm-hmm. nii may wax rew démb rek xibaar nañ ma ni ma dajaleel nañu dara sax ba danañu ko yónnee insha allah ba tey ci suba sax ma duggee ci groupe yi dégg naa ñu ni la ñuy yónnee sax egsi na Sénégal sax amee nañ leen cant waaye nag ñu bàyyi leen ak sëñ bi mm. waa Touba ci kanam tamit comme ni ma ko waxee tamit rawatina commission sociale ñoom tamit ñetti at a ngi nii yoo xam ne moom wax dëgg yàlla bu ñu mënee dem téye ay nit ba di leen berndeel mm. grâce à ñoom ñoo euh, ngi leen di sant bu baax a baax a baax daal di wax nag euh, waa dëkk bi ku ci for xale mm. wala ku màggal si nga for xale fi nga ko foree rek bu ko for dem ak moom beneen béréb mm-hmm. ndax xale dox bi gaawut dëgg la kay xale moom fi mu réeree soo fa yàlla mën naa attee pexe am bu pexe amul nga doog a jokkoo ñun ci numéro yii ñun ñu wut ci ay pexe ndax xale tànk bi gaawut ñiy màggal si tamit di indaale xale yi wala seeni i bagage wala seen caabi oto wala seen bépp matériel boo xamante ni war naa mën a réer nañ bind seen tur wala seen numéro téléphone takk ci saag bi mm-hmm. takk ci walis bi bu dee bu dee xale sax même yére bi mu sol sax boo ko bitërnee ci biir sax bind fa numéro téléphone bi ci biir yére bi muy sol rek hmm. sax eh, pexe la ndax ñun loolu lépp ñu foree xale rek dañ koy soytu dañuy làmb poos yi bitër ñi yére yi di xool di xool maxtu yi mu sol téere yi mu sol sax dañ koy ràmb pour xool ba xam téere bu bees a ngi ci hmm. ba xam bindal nañ ko numéro téléphone dugal ko ci biir hmm. bu ko defee loolu lépp ay moyen la yoo xamante ni dañuy noppal ñun ñi nga xamante ni ñoo bëgg a xam xale bi ay waajuram wala kum dëkk kon di ñaax bu baax bokk yi rek ku ci yor bagage na nekk loolu sax booy seetaan télé sax aéroport yi am na ci hmm. kuy ñëw sax valise yi wàcc gis nga ko hmm. day am tur am numéro téléphone kon bul ñu Touba rek sama saak bi garaawut wutalu këy rek bind sa numéro téléphone dugal ci mbuus rek fas takk ci hmm. bu réeree rek ñu xool ko ah kii kat kan la sëñ koso wala sëriñ beng ah numéro téléphone am karram ah yow de sa saak bi mi ngi fii taw feex wala umur xulaa wala béréb sàngam jeex na boo mënee a jël si denc ko rek xale buy dox daal nañ fexe ba ab numéro téléphone nekk ci moom loolu danañu dimbale bu baax a baax a baax di tàllal loxo ñëpp nag di sant ñëpp tey gërëm ñëpp nag euh, di di wax nag képp ku may dégg tamit ñun naa ñaanal ñu nag suñu président ndax fan yi yaram bi dafa xaw a sutaate nag mm-hmm. muy Sidi Bara Cissé mm-hmm. euh, xaw a yaram bi xaw a sutaate nag waaye wax dëgg tane na bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. doon na jéem sax pour animer si débat bi waaye ñu teggil ko ko waaye nag ñu di ko ñaanal bu baax a baax a baax yàlla yokk ko taw ak wér ba mu delluwaat ci sagoom ba mu gën a mën a taxawaat liggéey bi tamit di sant bu baax a baax a baax di la jaajëfal sëñ ko sa ah, ci kàddu yi ak wax euh, bi di sant ñëpp tey gërëm ñëpp ko jaarale euh, waaw cotisation yi ku ko soxla rek euh, maanaam numéro Walloog Yeete am na numéro boo xamante ni sa cotisation wala sa dimbal wala bu dee kuy dimbale 77 750 06 36 kooku mooy numéro association moo ko moom kooku mboolem ñuy cotiser ci la ñuy dugal waaye léeg-léeg tamit nga gis ko dugal ci benn membre rek mm-hmm. woo ko ni ko mën na diw sama cotisation jox naa la ko mm-hmm. mu jàllalee la ko mm-hmm. euh, numéro yooyu di dox ci écran bi bi ak yeneen numéro yi ngeen di gis ci audio yi tamit ak ci groupe sociaux yi yooyu yëpp numéro yi kàngam yi la numéro yi waa bureau bi la ak ñi ngànk liggéey bi tamit ku ci woote tamit loo bëgg a leerul leneen rek ak koo bëgg a dugal sa ñaq sa cotisation dañ la ko leeralal nga dugal ko foofa waaw kon baarakallah sëriñ Mbacke ñu sant la bu baax gërëm la di gërëm sëñ Mortala moom itam àndoon nañ ñun ci waxtaan wi tey ñu doon amal euh, édition spéciale ngir wàccee euh, màggalu ko 2021 di fukki fan ak juróom-ñett ci aw safar ni ma ko waxee woon rek Cheikh Al Khadim sunu yaakaar tey ak ëllëg moo ne woon képp koo xam ne sa mbég sama mbéga nag ma santale sama borom tabaraka wa taala loolu waral waar wi TV doon si bay waaram ngir ànd ak waa association di wallu ak yeete ñuy def liggéey bu am solo ci diiran màggal Tuba ak bu ñu paasee màggal gi liggéey boobu day continuer kon man ngeen a jël numéro yooyu nga xam ne dafay daw ci suuf sa écran bi ngir bu dul yéen it di keneen koo xam ne bu ngeen ko gisee mu réer nga mën koo jox numéro bi wala ku leen woo di leen laaj ngeen mën koo jox numéro bi ñoom bu jokkook ñoom daañu ko orienté incha allahu rabbi ba yóbbu ko fa mu jëm même buñ ko xamul it daañu ko téye comme ni ñu ko waxee rek xam naa ne liggéey bu am solo la waaye liggéey bu métti la ndax dañu koy booleeg togg ay berne comme ñi ko ñëpp di defee boo leen fekkee foofee dina mel ni yaa nga ca kër gi nga xam ne fa nga jëmoon te boo fa bàyyi koy it daañu lekk ci toog ci yoon ba nga àggaat say mbokk kon ñuy sant bu baax di gërëm Cheikh Mamadou Bachir Sylla mi nga xam ne moo féete woon ci wàllu xarala gi fii ñu nekk ci studio bi waaye di sant bu baax it Serigne Fallilou Galas Sylla mi nga xam ne moo ñu féete moom itam ca diwaan bu marché Ocass bu Touba ngir ànd ak ñun jotaay bi ngir jottali mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Touba yëpp ñu ànd ak ñun ci télévision yi nga xam ne ku képp ku nekk sab saal jamono ji yaa ngi ànd ak ñun en direct waaye intégralité li nga xam ne mooy xew fii ci studio bu Waarwi TV kon ñuy sant ñëpp di leen gërëm di leen jox dox daje beneen seen amoon incha allah rabbi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu fi amanillah